asalaamaaleykum waa facebook auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa salim boo gisee boo leen gisee ma def live bi te prévenir uma kenn rek c'est parce que l'heure est grave moo tax ma jël initiative bi pour wax ak askanu ndakaaru askanu sénégal ndax am na loo xam ni moom bu fa politique jëmee jaratu ko ndax fii kenn du fi tàppet kenn du fi naxa-naxa nit ñi dofuñu ay nit njaay lañu parce que Sénégal li ñu ko bëgg a def ñun askan wi duñu ko nangu doo duñ ko nangu parce que lii tur bi mais trop c'est trop dafa am loo xam ne nag moom suñ ca jëmee ñun duñu noppi nag di ko patiral dañuy dugg ci xeex bi ndax boobu ba léegi ñi ngi woote jàmm tooñuñu xuloo wuñu waaye nag lu ëpp tuur lu ëpp tuur moo tax nag fi mu nekk nii tey jii ma jël fas yéene def live bi ngeen baal ma àq maa leen di nuyu yéen ñépp di leen sant yéen waa Ndakaaru yéen waa Sénégal partage leen video yi ndax lii may wax damay leeral lu bari lu bari lay leeral ngeen baal ma ma def tuuti euh, silence sama téléphone ndax bañ nga woote yeeg yooyu baal leen ma rekk ngeen baal ma rekk dama doon dindi sonnerie bi pour que ñu bañ ma déranger tey nag l'heure est grave parce que dafa am lu xew dañuy politique mais nag duñ def politique bu salte dañu sonn nag xam nga nit ki danga koy daw di daw ba sës ci miiru wis wi tey nag moom sénégalais yeeg dakaar waaye dama bëgg ngeen xam ni tey du ñu nangu nit di victimiser boppam ngeen koy jàppale man waa taxawu dakaar ak waa ñam falaa nekkoon di politique xalifa sama frère la Bart sama frère la waaye nag la ëpp tuuru dañuy politique na rafet ndaxte kat politique bu salte musu fi am ta duñu ko nangu dañ doon piéger président Macky sal ak waa Bennoo far ñoom ñu dugg seen kàmb ndax ku ne xam na ni code parité absolue lañu wax liste Yewwi juumul ci benn liste du national du ci yeneen région yi kon dakaar gi nga xam ni fële mbir mi nekk enjeu yépp dakaar la nekk suñu toppee parité bi ba ci avant dernier ci liste bi ñu def ko góor defuñu ko jigéen ñoo ko tey ndax suppléant bi ngoone meng lañ ko def te jigéen la te jigéen jigéen a koy remplacer góor góor a koy remplacer kon dañ doon dugg ci bëggoon na dañoo teg seen stratégie prémédité ko far ñu dugg ci seen propre kàmb kon sénégalais yi yéen Dakar waa yi na ngeen yeewu ku ci bàyyi nag sa doom mu manifester laaj ma yàgg naa manifester ànd ak ñoom te bu ñu ma tëjee reer sax daanuñu ma ko jox walla ndékki kon ñooñu kenn gënuma leen xam ku bëgg sa doom walla nga fonk sa doom na ko téye ana sama rak ana Habib Mboup jàppuñu ko ba tàyyi te ci jàpp ko ànd ak Bart ci lañ ko tëjee ba ci si la ci la sama papa karjaagee ba dee te lépp ci Bart la ngeen bëgg lan Barthélemy may ñu jàmm ngir jëmmi Seydina Mohamed Barthélemy may ñu jàmm ñu ak yow ay nawle lanu waaye nag politique bu demee nag ba taal dëkk des ci ba rey ay nit des ci wala ngay dugal àddina bi ci tooxi doona nag nan taxaw kilifa diine yi laay woote ana waa Tiwaawan ana waa Tuubaa ana waa église église wax ak Bart papa Maodo si wax laa waxal ak Bart ndax sa ndax ndax ndax Bart sa doom la waxtaan leen ak Barthélemy Diaz gi nga xalifa ba muy politique ñun commencé wuñu politik kon naaxul doful lu mu def rek moo ko tey te entourage xalifa euh, Sall ñoom Moussa Tine ah, ñoom ñëpp ay juriste lañ list bi lu ci am ñoo ko def exprès dañ koo prémédité rien que pour indi coow ci dëkk bi taal dëkk bee leen tax a jóg dañoo sonn nag ñun dañuy politique di ay gor nii may waxee na ngeen ma ko jéggal mais nag lu ëpp tuuru nag nañ leen nawloon te ñun ba ñuy dugg ci politique judd ci parti socialiste di gis ay référence ñu ñuy jiite loolu amul googu moo ñu moo dugg suñu xol yi ba ñu bëgg politique ndax yaakaaroon ni politique lu noobu la ndax xeexal sa communauté xeexal sa gox acte bu noobu la bu la ci nit ñi fayul sax yàlla fay la ci mais politique dem ba di sos di di di di di di di créer di wax lu dul dëgg man léegi dama yeewu de dootuma xeexalati kenn xeexam dama xeexa xeexa xeex ànd ak ñoom di xeex di xeex di xeex ba fu mu mujj fan la mujj tey anamu tey fan la muccu ngeen ni duñ ci wax dañuy wax ba mu saf sap man bañuma ko ma fekk sama kër bañuma ko ma attaquer waye deug gi nañ ko wax khalifa khalifa sall yow lay waxal man xamna la bu baax sa xel la wër ndox mu sedd buy ray téñ nga la xamul man xamna la arrêtel da nga am problème ñu xéxal la à nos risques et périls lu ne def nañ ko ndax yow lu ne def nañ ko ndax yow te fumu mu mujj man lay xexal. te di dem fanani tribunal nit ni di yeewu fajar Xamone ngeen ni procédure nu numu tudati procès bi dès le début ngeen ko fausser. ngeen ni def appel jour chaque jour ngeen ni def appel ñuy xëy ñuy xëy di gont di xëy di gont di xëy di gont di fanaan di toog ay procès ba quatre heures du matin di wàcc suñuy njaboot ba ñu dem cassation ci la yàlla ubbee samay bët arrêté leen di utiliser population bi ak du baale te yow xam nga ni li la dal genn wàll gi yépp àq la yow xalifa Sall li la dal yépp ci politique aka la topp kon nag wàññi sa gàllaaj ñu jam la waxuma ngir Macky Sall waxuma pour yow waxuma pour baat damay wax en tant que responsable politique en tant kuy politique en tant que citoyen dañoo sonn ci yëngal gi ngeen yëngal dëkk bi politique bi ngeen bëgg di ko def mooy lan ana seen noblesse ana seen dignité da ngeen di woote brutalité ji ngeen di ngasaw ngasaw gi ngeen di def ñoo leen ko dàq foofu boo leen ñu ko euh, tim kiyee timbax leen ko foo leen ñu ko foo leen ñu ko foo leen ñu duut ñu timbax leen ko dawatuñu saala yaay ndeer comme xamoo leen nag ku xamul buur dee na xam buur saay na xalifa arrêteel homme d'état nga te ëllëg di soxla Sénégal jeu yi ngeen di def arrêté leen ko ndax nit ñi dañ leen a wegoon bu leen tax nit ñi ngeen dégoûté leen te commencé nañ ngeen dégoûté nag population bi

man de bu ma sañoon dañ leen koy changel may leen ngeen dugal jigéen ndax ngeen may ñu jàmm man loolu mooy sama yéene ñu jàmmaarloog yéen xeexandoog yéen daal tase ci terrain bi xeex wutali assemblée nationale ñu xool ndax yéen a moom sénégalais yi sénégalais yi yeewu leen Dakar yeewu leen man je n'ai rien contre Ba je n'ai rien mais trop c'est trop on a marre de se bagarrer on a marre de dama nekk victime mag sama famille topp xalifa Sall topp Barthélemy Dias ñaata mën musuma dugg police judd naa ba toll ni ma toll musuma dugg police xeexal Khalifa tax ma miinoon police ñu jàpp ma ba jàpp sama doomu mineur ñu fanaan police keroog jour boobu ñun ak Bart ak Bamba Fall ñoo ànd doon jubilé muy la lendemain bi ñu gañee Euh, Grand Yoff ci yi mille bi 2017 bañ demee ba Médina te lépp ñoo ko def ndax bi ñu ñëwee dañ leen wax ni leen amoo autorisation man ba ma déggee ne amuñu autorisation laa ni dinañ nu lacrymogène ma buub xale yi ma àndal ni leen nan avancé ñu dem ba banque centrale fa la lacrymogène yi tàmbalee ñu dugg ñoom daw jur dugg ci Gibraltar boobu ñu ngi si seeni oto toog ñun ñuy dox man bi ma nee samay njaboot kaay leen ñu dem ñu jëli taksi ñibbi ak xale yi ma àndaloon bi ñuy arrêté taxi la police gaare samay tànk ma ne xale yi daw leen xale yi daw sama doom ni duma daw buñ la jàppee jàpp ma ñaari jeunes yu dëkk sama koñ ñi ñoom it duñu daw bu ñu dawee jàpp ma buñ buñ leen jàppee jàpp ma ñu dugal ñu ci oto bi keroog ba ñu yeggee police ku ñu fa fekk barke salaatul fatiha du dara lum ñu jox reer sax joxuñu ñu ko on était dix-huit personnes ay góor ak ay jigéen ndeysaan Zal Tyson mii gaañu ma koy jaale ñëpp moo ñu jëndal keroog reer barke salaatul fatiha mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen xale yi tiit gis seeni baax mu jënd jëndali leen ay euh, serviette hygiénique jënd carax dem jënd ay mouchoiru euh, serviette yi ay mouchoir yu carré yu serviette mu ni dadaa ngeen bu bëri xëyee ngeen bomb ci saabu yi ngeen fompee ko seen yaram ngeen nettoyé ko seen yaram dañoo sonn nag dañoo sonn lool nag ci jeu yi nag keroog ba ñu fa toogee ci guddi ku nu fa fekk Zaltayven moo ñu jëndal tànganaa ñun ñépp pain omelette la ñu reeree barke Nabil Moustapha ak ay sachet ndox moo ko génne ci poosam jëndal ñu ko dangeen ñu faa fekk fekkoo leen ñu fa Marie Élise jabar rakku jabaru xalifa moo indi ci guddi gay hamburger jox ko Léopold Mbaye mu indil ñu ko ci guddi gi ñu ngi may seetaan te xam nañ ne fenuma ñu fanaan police centrale police centrale dafa am xorondong guddi gi ci karo yi lañ tëdd man dama uuf sama doom ba bët set nelaw ma ba bët set xorondong yi di nu màtt kaña yi di génn ci euh, euh, chaise turque yi di fekk si fi ñu tëdd sunu yaram yépp def ay tërgën ñu màttate noo màttate nu ba fajar ñi ma bokkaloon mbir mi xam nañu ni fenuma te li may wax dëgg la musuma ko nettali dañ ñoo màtt ba fajar gëmuma bët ba fajar sama doom laa uuf ndax sama doom përe ma préoccupé woon ñu tëj ñu ci kaafi ndax kan ndax Barthélemy Dias anamu tey ba ñu xëyee dañ ko gis gisuñu ko dégguñu ko ji nga keroog bam bañ ma nee nañ naa naa génn dem ma bañ may keroog googu yàlla ak Aziz Mbaye bu Marème Faye Sall Aziz monsieur le ministre Aziz Mbaye moom la benn jeune am ni dañ maa jàpp maak sama doom fekk sama téléphone fay bi ma taalee sama téléphone laa gis appel manqué ma woo ko mu ni ma ana sama su ana sama doom ana sukay na maa ñees ma ne ko sama frère yóbbu na ko ñibbi na ma ne ma foo man ko buntu police ndax xale yu góor yeneen ni dañ leen jàpp bëgg leen defeere bëgg ñoo jiiñ ni ñun ñoo yoroon oto bi yoroon xeer ak jay jaasi L200 man damaa yor oto nga xam damaa dugg taxi ba ràpp fu may jëlee oto ba amee xeer dama leen wax rek pour ngeen comprendre fi may jëm ak yéen Aziza lijjanti ba ñu bàyyi xale yooyu ji nga jour boobu bi ñuy ñibbi 5000 francs la ñu yoroon danoo doxee police centrale ba Sandaga ak xale yi ma àndaloon yëpp 18 personnes personne ñu jël car rapide pour ñibbi suñu kër kenn jël si wuñu kenn bi ma ñibbisee dama sonn ba damay yegg si rek tëdd lekk sax jaaruma ci jour boobu añuma reeruma dama yegg si rek tëdd nelaw sama yaay waxuma dara ñu ci dëgg maa ci fen ñu xëy suba teel 10 heures mu wooluma ci néegam ma wuyu ko ñu ma dara doom bu bëggee dara danga koy jàppale waaye est li nga li nga jaral li nga li la fa jaral yow jaral nga ko ko lii la ma sama yaay wax li ma police gii ngay dem ba yóbbaale sa doom ndax jar nañ ko ndax damaa gisul dara loo war a tax nga war a di def nii ngay def jour boobu dama dem dugg sama nekk jooy na xam ne sama yaay elle avait la li may wax ak yéen nii sama xol dafa fees

Bart la top ci ay xexam ak xexam ba mu dugg police ba sama papa ci la de, dee ngeen bal ma kon li tax ma wax tay on a marre de leur jeu seen jeu lan wara ba téye leen seeni njaboot sénégalais yeewu leen te xam ne politiciens yi bëgguñu leen bëgguñu seeni njaboot seeni intérêt rek lañuy daw kenn bëggu ci kenn ku ci ne sa bopp ak sa njaboot dong moo la ñor soo yoree ay milliards say doom ñoo koy lekk say famille ñoo ciy tedd say am di jàmm yi nga yéene ñoo ciy tedd waaye ña lay sonal duñ ca am dara

nangeen ngeen gore te nangu ko tam may nit ñi jàmm lépp loo leen lebaloon nit ñi ci lu bon yàlla dina leen ko fay barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Khalifa yow boo xoolee fay gi nga fay rek di nga xam ne ay àq la topp boo xoolee fay gi nga fay di nga xam ne ay àq la du salte politique du wool politique du jëkk nit lu bon politique du ku la ji lu baax nga ji la ko lu bon may leen ñu sunu jàmm barke salaatul fati bëggatuma sa politique billaahi wallahi taala bu ko mënoon ba tey tey tey tey ba ko tey parce que dama ciy dund loo xam ni mu nekkoon fii comme bulu xeer ngeen bëgg lan may leen ñu sunu jàmm may leen sunu jàmm ay nitu fitna ngeen ku leen topp dina yàqu ngeen def seen coalition fitna yéen ñépp nitu ay ngeen ay satan ngeen yuy dund may leen ni ñu dund popula population bi noyyi politique rek wax lu ñaaw rek xasonte rek waxante yu bon ay créer ay lobby ay piège ba kañ ñun ba ñuy dugg ci politique dañoo amoon amul politik moo tax ñu dem ci ba jeex sa attendre rien ngeen bëgg lan da yaakaar ne man Bart wala yow xalifa dinaa leen mayati ngeen def ay nit victime sénégalais yi téye leen seen doom yi Dakar waaye téye leen seen doom yi ñii ku ci dee yaa perte ana ñu dee woon nag mars ndax Sonko. est que ñooñu tey seen avenir li ñu perte yàqu li des seen dund est ñoom Sonko ñoom ñoo leen di dundal seen i njaboot keroog bi may bi ñuy toog ci tali bi buntu cathédrale di baare cortège président Macky Sall mënoon nañ ñu tëj à vie bu du woon Marème fay sàll mu ñaaw te loolu yépp xeexal rek sa leader mooñ ci dugal waaye lu sama papa waxon rek amna tay neena len ba ngeen ande khalifa xalifa Sall ak samay dom police rek lañuy dem man sen bay dundu na ba de musuma taxu police waye chaque jour ñu may revue de presse di revue de presse samay dom ndax lan ta dafa tax ngeen tey ñu na ngeen ñu wara tey wala ngeen defal ñu la ngeen ñu wara defal da ngeen ko def tax la wax billahi salatul fatiha sama àqu baay dina leen topp sama àq dina leen topp sunu àqu famille dina leen topp incha allah bu dee yàlla li muy maye ngi maye te yéen a koy gis yéen koy gis bu baax a baax a baax a baax am loo xam ne nag gis nga mag bu jaaxaan di saw boppam lay saw lu ñaaw arrêté leen ko arrêté leen ñaaw waa ñaawte fii politikuñu pour ay rayante politikuñu pour xeex leen arrêté ñun ay góor lañu dañuy politique na rafet politique bi na rafet da ngeen doon def ay dil piège dugg ngeen seen propre piège Khalifa Sall moo la gën a xam ni xew Khalifa di politicien Nek député nek ministre nek maire warna naa mën ci parité bi ta xam code bi da ngeen doon victimiser sen bop pour tal dakaru njaay far yalla pour dessal len ci pax bax kon nak buñu kenn ray lima leni wax dal moy sénégalais na ngeen yewu ta baña top politiciens ba sank sen bop ku ci dé ya perte ku ci sa dé wit ya perte ndax jaxal gañ lay jaxal duko ko delloo si ko tejé duñu ko wutal avocat kon dama bëgg yeen ñi may waxal yeen sénégalais ngeen xolaat sen taxaway xolaat leen sen taxaway ngir yalla ngeen baña top politiciens ci ay bi dañoo sonu ci ay ay guddi aw bëccëg kenn bëggatul a kenn kenn bëggatul a woote gi yaa ngi coupé sama live ngir yàlla bàyyil woote gi sama freer nga arrêteel woote gi li may wax daal mooy dangeen def seeni liste ngeen xam ni liste paritaire lañu wax comme liste paritaire la nag benn góor benn jigéen su dee góor a jiitu jigéen a ci topp beneen góor topp ci su dee jigéen a jiitu góor a ciy topp jigéen topp ci kon soo leen respecté parité bi ba ñëw ba ci avant dernier ci liste bi def Joseph Sarr au lieu ngeen mettre jigéen ak qui la ngeen def suppléant am jigéen te jigéen jigéen a koy remplacer kon loo def xam ngeen ko ndax juumoo leen fenn ci liste yi da ngeen bëggoon a seen bopp pour taal Dakar duñ leen ko may duñ leen ko may dara man nag lijjanti naa ba sonn pour que ñu bàyyi leen ngeen remplacer ko xaw ma nu muy mujjee waaye dama lay wax rek sénégalais yi ni leen dañ doon dugg ci tooxi doono ay du yem ci bopp boroom da doon bëgg a yee fitna ndakaaru njaay mu këppu ci seen kaw kon fi mu nekk nii dafa am loo xam ni su amee yéen ñi ko def ngeen assumer ko ba mu mat mais bu leen leurrer la population bu leen leurrer la population 2019 laa àndatul ak yéen tey laa leen mës wax tey laa leen mës tudd mësuma leen a tudd mësuma leen wax lu ñaaw lu dul téye sama bopp di len setan ba pare ngeen xol nit ñi ngeen wor da ngeen def sen coalition wor ay nit ñi ngeen wor ngeen defee ne seen àq du len dal baña dal yalla yi legi xale bu goor la dang koy def fi nga ko defé mu fayé la lako fi la ko defee may deg kon nak limay wax dama son dama tok gis ciowli gis ciowli ma muñ ko mënatuma ko muñ Dakar waay yeewu leen ku ci ne tu libre nga ànd ak ku la neex mais ci jàmm ku la yéene jàmm nga yéene ko jàmm ku la yéenewul jàmm nga teg ko fële te doxi sa dox xale yi ci sànku ñëpp yoruñu seeni kër seeni dépense yoruñu seeni seeni dund pourquoi nag lii war a continuer ñuy jël nit ñi di leen utiliser man sama ñaata rakk la ñu tëj ndax jaabi Barthélemy sama ñaata rakk dem naa ba taay tribunal ndax bañ ñu defeere leen à cause de Barthélemy Diaz bi ci mujj mooy lan mooy bii nga xam ni téye nañu sama rakk ak ñoom euh, euh, nu mu tuddati jeune yi ñoom konaare téye nañ leen dig cinq jours garde à kon bu ñu kenn rey dama bëgg ñu arrêté arrêté leen doomu jàmbur yi ngeen di jël di leen def ay bouclier di leen xeexale xeexee fii ku sa doom perte yaa ñàkk ndax doom kenn du ko jënd danga koy jur waaye kenn du jënd doom te bu doom xasee bu dugg ba dee ba ñu gas ko ba suul perte nga la ma la waroon liggéeyal bu màggee fan xam nga koy jële ñooñu bu ñu la jaale see pare nañ ci yow dootuñu la gersu kon nag dafa doy da doon def seen stratégie ba tax ngeen ci seen biir kàmb da ngeen doon gas kàmb yéene ci dugg kon bu ñu kenn nag fitnaal benn fitna bu ñu ko indil nag ci senegaal ak Ndakaaru Njaay may leen ñu jàmm dañoo jóge ci weeru koor may leen ñu nag jàmm ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa boo leen defee seen erreur na ngeen ko assumer yéen a def seen erreur assumer leen man ngeen assumer ko man ragaluma li may wax ñi may waxal xam nañ bu baax ne xam naa leen man kenn kenn kenn kenn xala man faalewuma kenn xam kenn jënduma kuy wax dama lay ree saaga leen ba mu neex saaga leen saaga leen ndax saaga ngeen dese mais boo leen amee ñoo leen saaga saaga leen seeni leader ndax ñoom ñoo doon def liste yi ta bañi def li yi waron nañu xolaat ni def ba erreur du am kon buñu Ken kenn ray bu yeboo ngeen saga ba naw luma way wax rek sa nday nga ko wax wala sa bay mu jeex tak xama saga ngelaw la takul fen man ku bay saga duma wañi tus ragaluma kenn bala ngeen ko xam tay ñu lo face à face di ngeen xam ni man ragaluma limay wax ragaluma ci dara ndax li ma wax ham, xam kon may len nak sénégalais jam ba ngeen xamé ni da ngeen nek nekk ci challenge nekk ci défi waron ngeen xol bu baax li ngeen di comme nak da ngeen don wut yoon boo le talé dakaru njaay am ngeen lu leen doy mbu boog li jentil leen ko seen bop ma ngi sant ñëpp di gërëm nyep. li tax ma wax li dañoo nekkon ay victime sama frère ba ci man ak sama ndax kan top Khalifa Sall top di xex homme La nannu fune dugal ba ñi jaruñu ko jour un homme police car rapide doxé nga fanané xol yenn buntu police ndég añoo Nekio. wo nga tok ci Ben ba Goudi. ay 22 h 30 ñu libéré ñu gorñi ñu police centrale ba Sandaga dugg car rapide pour 5000 bi ma yoroon ñépp mën ci paas lan lañu jariñ tey rien kon na ngeen téye seen doom yi yéen Dakar waa yi laay waxal yéen sénégalais yi lay waxal ñi nite laay waxal ak ñi nga xam ni danoo yor ay xel yu xelu man seen ne parle pas avec ñi nga xam ni fëkk daleena yóbbu ñun fëkk yóbbu yu ñëw dañoo sonn ci mbir mi on a marre xew ci politique ma suuri politique politik lu noble la woon ngay gis ay référence soo taxawee assemblée nationale gis ñoom Maba Guirassy ñoom Daouda Sow gis ñoom Habib Thiam gis ñoom euh, taa taa aram gis ñoom euh, nuñ koy xatee Léna Fall jaañ gis ñoom mantulaay jéen gis ñu dul jeex ay référence tey jii nag kenn xamul ñuy politique lan la te na ngeen def attention gi nga yuuxu dina jib foo leen ko foogewul da ngeen yaakaar koo leen gis rek ngeen fal ko yéen a ngi dugg ci góote te du ma bu xoola wéyteen si suba ngeen di comprendre dafa am leader yoo xam ne moom ngeen jël ni moom ngeen jël pour ñu ne représenté leen assemblée Nous xam ne dañuy lijjanti ñu ñu toogee ci nguur gi ñi ni xéxatuñu par les armes dañuy xéx par les instants de décision pour monopoliser le pays Nous, on sait tout ñun dañuy ñun dañuy réfléchir ñi ngeen gis Nous, ñi xëccoo député bi genn wàll gi yëpp pour askan seen combat personnel lañuy ñu mënee parce que dañoo bokk ci lobby boo xam ne dañoo bëgg a accaparer le pouvoir te duñ leen ko may duñ leen ko may fenn ni ngeen di xalaatee noonu la ñuy xalaatee dama bëgg ngeen xam ni ñun dañuy politique te ne n'est des idiots li ma leen di wax nag mooy xam leen bu baax ko leen ñoo leen di sànni seeni carte ndax bés boo leen sànnilee ñenn ñi seen carte ba ñu am li ñu bëgg bu ëllëgee. su ëllëgee yaa may dégg ay buum lañuy teg seen baat def leen ay jàmm te du leen ci mën dara kon nag à bon entendeur salut maa ngi maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp ñiy saaga man li ngeen di saaga méttiwu ma ku respecté sa ndey mbaa nga respecté sa baay doo jéggi waajuru jàmbur waaye boo joxul cër sa ndey joxoo cër sa baay. soo gisee waa jur ju jàmbur sagar nga koy def loolu moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax rek ni président Macky Sall bu la kenn dugal bu la kenn tooñ defoo dara dara defoo ko say liste yónnee nga ko joxe nañ ko ku ci ne boo amee nag sa problème sa liste assumé ko yoonu Dakar waayu nekkuñu ci yoonu sénégalais yi nekkuñu ci kon buñu kenn ray li dal nit loy def nang ko xam ndax loi bi dafa changer investiture kenn mënatu ko changer bu xasee ba dugg jeexna kon tayji lu way rend rek ci loxom lay naaj kon li xew bu len jaxase askan bi ak kenn lu xew tay yena ko tek sen bop ken tegu leen ko nako ñepp xam li xew tay yena ko tek sen bop ken tegu leen ko waroon nga ba ngeen di def seen liste ngeen xool bu baax ni ngeen koy agencé kon nag bu ñu kenn rey li ma leen wax daal mooy danoo sonn ci xuloo be xeex be xiiroo be ngaayoo bi yàllaa xam lu tax lii xew pour que sénégalais yi yeewu xam ni nekkuñu ci voie bu baax téye leen seen doom yi toog leen seeni kër bu leen kenn xeexloo ndax ku ci dee perte nga te ku ci dee la nga waroon takkee jabar bu dee góor war ci am njaboot war a teral sa bopp teral say njaboot dootoo ko am kon nañ ñu nit ñi dimbali ñun dañoo sonn ci politique bu ñaaw bi dañoo bëgg nag ngeen may ñu jàmm kenn bëggatul politique kenn kenn nangootul politik ndax wax ju ñaaw wax ju salte dugg ci vie privée jàmbur wax ju ñaaw sos di fen di yak deru nini di def ay lobby di piéger nini lu ko fi jar politik politik fàtte ne loo politique politique lu mu yag yag dinañ la dugal ci pax dinañ la dugal ci pax ala kulial bayil xel mun kiir ak nakkiin malay fekk sa ba mel kon nak may leen ñu jam may leen ñu jam dañu son man de buma bu ñu mënon reporter élection yi dinañ ko reporter ñepp am jam ma souri politique ma suuri politique ma suuri politique